di santaat cheikhul xaddim ñëw ci ndigal li nga xam ne cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moo ko joxe muy ndigal lu wér di lu leer mu jëm ci benn fan ci muharam war a dëppoog suba ci àllarba di 11 août 2021 sëñ bi joxe ndigal euh, ndigal li nag fu mu jaar yëpp ñoom xam nañ ko jiital ci sëñ Hamsadou Mbacké boole ko sëñ Youssou Diop di responsable moral Hizbut Tarqiyyah ngir maanaam lu dalee ci jumaa ju mag ji ak li ko wër ba ci pencum daaru Minam ak fépp fu ci nekk maanaam ñu dundal ko ci li nga xam ne nii moom mooy njàngum xasida xasida yi nag ku ne xam na worma yi nga xam ne moom la làmboo ku ne xam na yi tamit njariñ yi nga xamante ne moom la xasida yi ëmb te eh, lépp a ngi ci biir maanaam xasida yi moom suñ ko waxee ñaan a ngi ci biir tawasulu mu ngi ci biir taw tawbaa ngi ci biir sant a ngi ci biir eh, delloo suñu borom ci suñu borom ñaan ko ak lépp tënku na ci xasida yi loolu nag maanaam fii ñu taxaw barab bii di site Daaru Minam Euh, ndax bara bu ci ne am na ñoo xamante ne ñoo koy taxawu ñun nag ñu am tawféex yoo xamante ne site bii ñu nekk muy Daaru Minam euh, dañ fay fekk suñuy mbokk taalibe muy wax Ahlu Minam ci kilifteefu sëñ Cheikh Abdou Hakim ñu taxaw taxawaay boo xamante ne taxawaay bu ràññeeku boo xamante ne mënees nay wax ne bokk na ci site de référence yi ci lépp nag loo xam ne dafa jëm ci wàllu waajal bis ci wàllu nuñ ko nosoo Euh, ci fukki commission yi ak lu ci aju lépp kon loolu mën na jox sëñ jiili Ndiaye ginnaaw bu mu ubbee man sëñ Ibrahima ñu ngi ñu yebal ma fi euh, teewal fi Hizbut Tarqiyyah ci responsable site bi waaye li nga xam ne nag mu ëmb wàllu organisation bi lépp kon dañuy jox sëñ Jili Ndiaye mu leeral ko ci wàllu culturel ci wàllu restauration ci wàllu accueil orientation ak site yi ci aju sécurité lépp lu ci aju barke sëñ Tuubaa yu jëm ci liggéey bi nga xam ne ba mu ba léegi yëpp kenn toogatul ngir ndigal murid moom maanaam amul benn loo xamante ne nii war na koo jëfee am ndigal ndigal loolu nag ba mu tàbbee jaar noonu ko suñ suñu ñu résumé rek ñu nit ñuy waa daara Ahlu ci njiital sëñ Basiru Xuma euh, bootu nag ci suñu kilifa gi di sëñ Cheikh Abdoulaye El Hak sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Abdou Hakim moom ba ba ndigal tàbbee ba léegi ñoom waa daara Hizbut Tarqiyyah ci seen yaatal ñu xam ne Daaru Minane gii kat waa Ahlu daanaka liñ fi liñ fi soxla ci li ko sëriñ bi bëggee mate na ko sax ba tax ñu jël site boobu féetale leen ko waa yàlla dogal it bañ ñu ko féetalee dañuñ ci di jokkook ñoom ci ci lépp loo xam ne ñoom noonu lañ ko tënkee ndax tënkin wi daa ànd ak ndigal ngir ne leen ko sëñ bi digalee ba nga xamante ne nii dana nosu nosu goo xam ne benn benn liggéey bi foo dem ci barab yi nga xam moom lañ tànn ngir defal liggéey bi benn lay doon ci noonu nag ah, ni nii ngeen ko gisee rek waa daara Hilmina nit wax dëgg yàlla mobilisé nañ moyens yi am yëpp ak yi am maanaam moyens yi am yëpp ngir ngir bis bi gën a rafet ci noonu fii ñu taxaw nii mooy site numéro un bi nga xam ne maanaam dañ fi yëkkati xasida kuréel di fi durus site numéro un bi nag fii la tàmbalee dem ba ci jullikaay bi ak penk ak penk boo fii fii it boo xoolee daanaka mën nañ mooy sit bi gën a yaatu waaye soo demee ci euh, nord bi mooy fi nekk ci booru barabu sëñ Basiir bi am na beneen site bu ñuy wax site numéro 2 foofu tamit kazalika li ñu li ñu fay def mooy durus ak ak yëkkati xasida boo duggee ci biir kër sëñ sëñ Basiir bi maanaam site la bu ñuy wax site numéro 3 mo noonu moom it noonu xasida lañ fay yëkkati muy wàllu culturel ci wàllu conservatoire bi boole ko tamit ak maanaam wàllu durus bi kon da gis ne daaru ni yeneen sites yi da doonee benn fii benn fële bii dafa mel ne benn site la bu mag boo xam ne dafa boole yenn yeneen i site kon noonu ko sëñ Ibrahima waxee dafay laaj saytu bu wóor bañ ci tënkoo nag ba waajal ko ah, daal ji wax dëgg yàlla ah, xam ne lii seen jëf ñoo ko waroon def ñu dogg ci ba lépp loo xamante ne nii lu jëm ci site bi la dañ ne dañ dañ ko leer suñu mbokk taalibe ne leen mën ngeen xool yeneen site yi ko manqué ñu àggal leen fa waaye nag muy wàllu togg di wàllu sonorisation di wàllu lépp loo xamante ne wàllu la dañuy tënku ci seen i instruction waaye daal di ci boppam gàddul na ko maanaam site site bu mag bi nga xam ne mooy site Daaru Minam kon daal ci tënk ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan mbokk taalibe it ni ko sëriñ bi waxee kenn ku ci nekk boo ñëwee nga sàmmoon teg sart yi nga xam ne moom la kër docteur wax mooy di takk masque yi di di raxas seen loxo te di xaw a solante di bàyyante xel te bu ñëwee ànd ak dal xam ne du barabu dal du barabu dal comme ñu naan fan laay dal wala fan laay dal barabu yëkkati la ak durus ndax waxtu bi bariwul daanaka 9 de temps de prestation la suñ ko suñ ko géré ni ko war a géré li ci sëriñ bi bëgg moom moo ko xam yàlla na yàlla doole taw feexu matale ko te defee ko ni nu kawe suñ jot ba mu dencal ñu ko fi yàqaagul wasalaamaaleykum wa rahmatullah